wax na waxam eh, wax na waxam waaye nag àndul ak yoon seetuñ ko sax dégluwuñu wax jooju mooy li ñu gis mooy commission bi li mu wan ne kii moo gañe te li ñu gis mooy suñu baati li mu wax ne waxtoom su jeexee ci weer wi ñëw janvier ci weeri janvier ne kii mooy war a jël moom loolu la gis ñun tam loolu la ñu gis na jarul benn fitna jarul benn coow ñëpp nañ pareyaas waxtu wi moo jël si euh, pouvoir bi ñëpp nañ pareyaasal loolu loolu la ñu woote ndax nit su juumee dañ ko war a diggal su awul yoon dañ ko war a diggal mu mel ni ñun bokk nañ si ñu ko diggal ah foog naa ne war ngaa kontaan ne ki nga xam ne téye na ne moom moo gañe euh, jéemuta nekk di wax wax joo xam ne ji waxi yàq la mu ngi wax waxi defar mooy ne na na seetaar xelam ndaxte ba mu d'accordee ne te kii la gagné àddina yëpp moo kontaan ci loolu. mu mel ni Touré Gambia dafa feeñ ci àddina yëpp.